merci euh, Pape euh, avant ma lay tontu dama bëggoon euh, vraiment saluer la allez analyse de de Cissé euh, teintée également d'objectivité parce que loo tamit c'est important devant une situation il est important parfois ñu teg de côté les considérations partisanes et ñu jiital aussi ce qu'on appelle l'objectivité mais comme c'est des questions politiques ñu accepter ce qu'on appelle la démocratie en interne euh, euh, Pape effectivement La question a été débattue dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi la question de la participation ou non au dialogue national. Mmh. mais xam nga ñun quand le président Macky Sall a fait son annonce euh, le jour de la Tabaski en disant que maa ngi woo. Euh, les partis politiques euh, Korité mhm. plutôt pour ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan. Mhm. xam nga président Macky Sall il est allé même jusqu'à euh, sax ay tur mais junj na ay nit ñu nga xamante ne da xam ni ñii lay waxal. Mhm. il a fait allusion au président Khalifa il a à à également. Maintenant, comme ñun dañu interpeller mais il était normal que dans notre parti mais qu'on se concerte. Mm -hmm. Et nous euh, dans le département de Pikine, on a convoqué euh, le bureau départemental. Bi bi déjà balaa Pikine bi ngeen mhm. concerté mhm. au sein de Yewwi mhm. lan moo ci tukkee. ci waxtaan bi waaw xam nga xam nga avant la avant les concertations dans Yewwi il y avait d'abord les concertations dans dans Sénégal ñun fi ñu bokk. D'accord. Nous on a fait une conférence de presse au niveau de Pikine su fekkee ni ñun waa Pikine ngay déglu suñu opinion mooy nga dem participer au dialogue Tamba a la même chose d'autres départements. mais justement loolu laa comprendre. d'autres loolu ma sama inquiétude pourquoi Khalifa Sall ak yéen mooy section yi. Mhm. boolewoo leen. Mhm. ngeen dem gis waa parce que Wi avant de faire. une sortie médiatique waaw foofu laay ñëw. foofu laay ñëw xam nga xam nga on est des partis encore une fois qui son légalement constitués xam nga suñu parti ni muy doxee du gëm sa bopp moo ñu koy dicter. du Pastef moo ñu koy dicté on a une de conduite bu nga xam te ne moom la ñu topp à chaque fois qu'une question politique est agitée mooy ñu dem vers des consultations à la base mm-hmm. et au sortir de ces consultations là le leader qui va nous représenter dans les instances de discussion mu xam ne man voilà la position de moom parti su ñu neexoon nag ñu nekk en interne ñu discuter mais ça c'est notre principe personnel mooy que ñun lu jug rek ku nekk am nga démocratie bu la may nga taxaw nga wax ci sa xalaat loolu moo permettre le président Khalifa bi mu demee dans les discussions en interne dans le cadre de la de la conférence des leaders. Mm-hmm. mu wax ne man sama parti dafa décider pour participer au dialogue comme ni ñeneen parti également waxee ne dañu ñoom euh, wax ne ñoom li ñu gis mooy dialogue bi amul njëriñ maintenant bu ñu waxtaanee dans le cadre de la conférence des leaders. Euh, li ñu mujjee tënk mooy que amuñu un consensus réel dans le cadre de la conférence des leaders par conséquent quand on fait un communiqué il fallait magnifier ou il fallait clairement montrer que après discussion la conférence des leaders n'a pas pu trouver euh, une position consensuelle et que par conséquent bàyyi nañ parti bu ci nekk nga jël sa décision bopp nga xam ndax da ngay dem wala demoo mais ce que la conférence des leaders a fait mhm. mooy dafa génne un communiqué pour dire que la coalition Yewwi Askan Wi décide na ne pas participer au dialogue ce que nous ne comprenons que encore fois euh, la coalition Askan Wi nekkul nekkul benn nekkul nekkul euh, un mouvement de soutien à un quelconque parti politique la coalition Yewwi Askan Wi c'est une coalition qui est de partis yu nga xamante ne ay partis yu am dayoo lañ parce que le PUR de Serigne Moustapha Sy du parti caaxaan mhm. le PASTEF de Ousmane Sonko du parti caaxaan taxawu Sénégal du parti caaxaan PRP et cetera du ñu ay parti caaxaan donc on ne peut pas comprendre que aujourd'hui pour faire plaisir à une personne que coalition bi décidé euh, dem ci benn camp maintenant ils sont libres de le faire parce que loolu mooy seen ay conception politique c'est qui cette personne mais Ousmane Sonko mais ñun ñun mais c'est ça amul loolu lay nirool c'est ça mhm. euh, ils ont décidé mhm. ils ont décidé de transformer la coalition yooyu Askan Wi en un mouvement de soutien et nous pas un mouvement de soutien nous on est un parti exactement nous on est une plateforme bu nga xamante ne dafa am dafa am le courage de ses convictions politiques ça va on peut pas être dans le parti di xeex jusqu'à pouvoir aujourd'hui réussir à faire de Taxawu ce qu'elle est aujourd'hui et accepter aujourd'hui en 2024 ou en 2023 di di transformer le Taxawu Sénégal en un mouvement de soutien pour faire plaisir à quelqu'un ça on le fera pour rien au monde que ça plaise aux gens de Taxawu de de Yewwi Askan Wi ou pas nous on a décidé de participer au dialogue et on continue encore une quoi fois qu et, quoi qu'il en coûte oh, et on continue et on continue encore une fois à réclamer notre appartenance à la coalition Yewwi Askan Wi parce que Yewwi Askan Wi. Yewwi euh, Askan Wi mais pourquoi ça euh, pourquoi yéen ngeen ko ne du. agrippé wu si du du question de agrippé wu. xam nga xam nga Yewwi Askan Wi. su fekkee ne su fekkee ne doom la bu nga xam te ne dañu ko tette ba mu agsi fi mu agsi mën na jàpp ne xëñ na su fekkee ne ñaar ñoo woon mbagg yi kenn ki yew yewi euh, kenn ki taxawu Sénégal la mhm. donc bébé boobu mënuñu ko tette ba fi mu toll ñu koy ñu koy seetaan déedéet nous on est nous on de de de de travailler mm-hmm. pour la préservation de la coalition Yewwi Askan